Baba Diaw. naka la. que bagage yi bari na du. fii de bëri pare ngeen. aca waaw. déjà hmm. ma man maa la ëppale di waaw. ñii dañuy direct. aca Baba Diaw ñu ngi lay ziar. maa lay fay. ba am nga jàmm. ñu sant yàlla bu baax. Baba Diaw digganteem ak Diène Kaïré loolu àdduna yëpp xam nañu mais Diène di dajeeg mbër bu dëgër bopp. mbër bu bés gis ngeen ni mu ñëwee ci làmb jéen jël lan ngeen bëgg a wane di set incha allah nooy indee jéen. waaw Paul avant tout damay nuyu sama kapa ñu ñu àndal ku mel am di Aba ñoom Mawo ñoom Dóoram xam nga ñoom président fan kër bi suñu adversaire xam nga dañ koy ñaanal jàmm xam nga euh, su nekkoon moom jéen du doole kon woo ñu jël benn kàddu bu ñaaw du ko ko teg. du du ñaan ko jàmm mais incha allah le 17. lan de man du dox si caaxaan. comment la. waaw loolu dama ci xam kon incha allah. wallaahi la gis le su jëm ñëwee. dañuy xam doomu Ndakaaru ñëw na. su ko jaralal benn. dañu jaral fukk. ndax duñ ko dépassé mukk. bu indee Seexu Xadim lu ñu fekk ko fi. mais nag du ñu ko dépassé xam nga lu tax wallaahi su ma lu mu koy jàppale sax naa ko jàppale ndax geste bu mu def jéen wala na ñeneen ku dul Zarko mais lamb ji ay tapet ah, ah. jéen quoi non dafa bëri ay tapet ay di ko sóoraale ba bëri ay tapet mais kii jàmbaar la kon dañ koy ñaanal jàmbaar la moo tax mu jël jéen mais incha la 17 dina gis beneen jéen bokkul ak bu indee xeex bu sax dàq dagg jéen ba euh, dina arrangé ji. wallaahi jéem dama ko xam. bu ñu nekk tout tànk bu mu nekk tout tànk laa ànd ak moom xam naa ko amaana sax su ma waxee mën nañu ñu ma ànd ak moom a tax wallaahi yemu ko fii. Ah, mais Baara Diaw dañoo gis si communication Zarko mu ne benn jooy la koy jooy dégg nañ mu ne Zarko euh, Diène Kaïré lu mu gën a diis gën koo arrangé. waaw waxu mbër la waxu la mais bu soobee suñu borom le Zarko lu mu mënti def day daan. ah def. day daan bu bëree. su maa ko doole. bu xeexee maa ko fit. maa ko gën a ñeme. mais booba tey détermination. non xamul la tey ñu gis da xaaju ci combat bi lan la. wallaahi Ibulaay moom may dégg. man dinaa jënd. nu mu libbee boo xam ne nii. wallaahi pour booy maintenant ñëpp demee sax. ñu deet maintenant mooy dal suñu yaram. Ah, mais lan la da nga jàpp ne Diène nekk nii du place am lan la dafa mel dafa am leneen loo kii. non àdduna lu jot yomb fii kenn rawu kenn nekk ak wësëgam la moom lu mu koy gëmloo saa su nekk mooy lu jot yomb jot yomb comprendre mais bàcc kay yonent bi laa la giñëw bàcc kay seexu xadim si la di sa day ñu xam doomu mi naa ñëw na fan ma gaaw ma wax man du ma ko gaaw ma jaaxal tey ni nga waxee kii mbër la mbër la. te le 17 la ñuy xam ne kii mbër la quoi. wallaahi su mënu daan Zarko. Ah. mu tekk ngeebam tekk fële. nga ñëw jàngal ko ci Serigne Touba ma ma du si business. bi ngay indi nag lan la. non lamb lamb la. da ah, la. du ma wax wax bu ñaaw. Ah. mais xam nga lépp. mais xaatu bi lan la tey ci combat bi da nga décidé. waral Baba tey si mbubu promoteur bi. waaw mais koo xam ne ba muy ànd ak moom. lu ma naan la kaw sax amu ma ko pël yàlla suturaal ma maam mi du jaay fa noob du ma def damay ñëw gunge ko fu ma yem neex parce que seexu xadim la 17 dina xam ni jàmbaar dëgg tax nag jàmbaar affaire mel naa la tey incha allah maa la wax fii ah. au ko tëxe la 17 dina jommi day gaaw wala day ah. yéex kon la 17 naa la simil sappo similoon naa la sappo waaw ba Sëriñ Tuubaa la 17 dina jommi soobee suñu borom la yàlla ànd jéen ñu ngi lay ziar jéen may ñu. delloo naa leen ziar di leen bëggee. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah jéen nooy waajee la 17 wala pare waaw waaw pare nañ instant yi mën naa ne pare nañ xam nga waaj nañ ak sunuy mbokk sunuy am di jàmm waaw. waajal nañ daal lépp lu ñu yaakaar ne dinañ may ndam waaj nañ ko incha allah yegg si na yàggatul ñaan yàlla yóbbuñ la 17 ak jàmm rek incha allah ñu bëri waa Grand Yoff waaw waaw mooy lool borom borom garaaf maa ngi moom xamante nañ. Ah. waaw coow du jib dañuy neexal ni rek mais ci géew bi ci géew bi incha allah man ak moom ñoo fay ñoo fay des waaw te man ak moom xamante nañ. yéen ñaar loolu loolu est-ce que que duñ bàyyi ba le 17. moom jot naa ko man daan laa mën li may rek daan. ok <laughs> waaw moom saal dañ daan bëri mais. daanu ma jàngal dañ daan bëri. te boobu boobu xale bu ndaw laa. muy am ay jafe-jafe yu rëy ci te léegi xale màgg na. nga koy tegal du teg. waaw gis nga yaa ma gën a xam. mais bu ah, tey dañoo gis euh, par rapport ak beneen jéen bi ñu daan gis moom différence que ni tey dañoo gis say supporters ñoo ëmb la indi la bis bi moom moo ko jar wala dafa am loo bëgg a wane ci bis bi. waaw dëgg la samay supporters moom man li may wax rek ay frères laa am samay raq samay mag tey koñ ba xam nga nijaay papa yaay copain ñëpp a jóg. jàpp si xam nga ànd ak ñi si yàgg jàpp ku ci mel ni baaba maa ngi koy bu baax a baax moom taxawaayam ci man mu limee damay juum ñëpp a jóg taxaw ay aba bàyyi liñ doon def yëpp ñëw taxaw dëgër waaw booy nag aw ma seen fay gis naa seen suba ba tey ñu ngi si lekkuñu naanuñu waaw parce que xam nañ ne làmb comprendre nañ làmb loolu lay doxee léegi vraiment loolu da ci bokk mobilisation te ñoom ñu ngi si côté boobu rek laa leen sas man li des incha allah ci géew bi dinañ ko gérer. Mm, ba tey li nga ba tey jubóo ah, <laughs> ma wax bari na de. Zarko da ne bu si bi sifflé mi ngi sa kaw nga ne bu fekkee moom bu euh, bu arbitre bi sifflé moom bu arrière wul combat bi du kii. du dama xay yombalal bu dee day muusantu man tooguma ci yooyu su bëggee bu arbitre si sifflé ñu daja bëre bu fekkee day daf may xaar na ma xaar ma ñëw. moom maanaam fu mu taxaw nga rabbi loolu mu def dara mu bàyyi waaye tamit. le 17 yàggatul ziar naa leen kontaan si yéen. merci beaucoup boo ak Baba Diaw waaw Baba Diaw moom xanaa day livré lal ndeysaan nga ne Ford la waaw waaw dafa xew ndeysaan Diène Kaïré mbokk yi moom moo nekk noonu di ñëw ànd ak Baba Diaw ànd ak Mbagnick Kairé ànd ak Père Kairé ànd ak waa waa Médina ndeysaan le tigre de Dakar moo nekk noonu xaafa ngi noonu ndeysaan tey waa Dakar yëpp génn nañ ànd ak ki nga xam te moom mooy jén jéen ndeysaan pël ñi mu ànd ak ñëpp ay amis d'enfance am lañ ndeysaan ñeneen ñi ay rakkam lañu mais Baba Diaw xanaa bii ba mu koy fabriqué da koo fabriqué l noir la laal de pël bii war nañ cee mën a toog de moom it da ma kare ak Baye ma Ndiaye la. dégguma non ma ah, ah, ay waay jour la 25 la lu la 25 lan moo la dal tey. Baba Diaw bi ma gis fat naa organisé wul <laughs> ay fat naa Ibou Laye organisé. pël pël xam nga yaa tax may juum taxaw sa côté moo tax pël yaa tax may juum. maa puus. pël pël bàyyi ma concentré wu. ku liggéeyu ku liggéeyu yaa ngi lan. le 25 pourtant benn la de le 25 ak le 17. lan mooy différence bi. ndeysaan yéen waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ko indi. ndeysaan gis naa ko sol jasneer ñoom ñoo ko xam ñun xamuñu ko waaw. jasneeram na de mi ngi tàkkee. wala bi Aminta Baxa yoxo moo fi jaar yoxo yoxo. mooy man Père bi. laa de jéem ah kii xamal lan la sol ndekete. jàllaabeem la sol teg ci kii kii bari na fi am de wala lu ruus de. kàlla Père Noël laa ko mi ngi xanaa gisoo ko sañ sa de. def nañ lu leen saf. ndeysaan. xam nga ñaan ñu bokk ndey bay bokk bis di bëre. ah loolu loolu. loolu eh jéen mës papa mës naa bokk ak papam bis. jën kay rek. waaw mooy bi papam di sibili. waaw ndeysaan mooy boobu la papam ndeysaan daanu moom mu daan. mais boobu la papam bàyyi la su ma juumul. mooy papa moom moo loo. ndeysaan. yaa fi yow. ndeysaan kii wa ngi noonu. cos nga. <laughs> <laughs> ndeysaan ku la rëkk nga wax ndeysaan kii waa ngi nii waaye nu mu tudd sax ay xar fa xuufa xorom si cin lañ ko a xam mais xorom xorom man xolo xorom parfois damay gis ay couleur yoo xamante ni doo comprendre quoi xorom kii nag mais xam lan lay indi xorom bu bu kii bi bu mokk bi yàlla mooy lépp de yàllaay lépp jal jal mooy lan